hamzun baitun la yasbutu illa iza btudi bihi kasasbito wa huwa li fi'lin maadin ihtawa ala akthara min arba'atin nahwun jala wal amri wal masdari minhu wa kaza amru sulasi kasawamti wal futa hamsul wasli hamsul hmm. wasli hmm. sumiyat bisalika hmm. li suqutiha ngir ratamenda waslil kalimati ji jokk bat bi maa ci li nga xam ne qablaha nekk na ji jàkkam boo gisee ñu ko wasli mooy baat bi mu nekk su fekkee da nga ko bëgg boole bi ko jiitu maam ko ji doo ko jaar alkitaabu am saa ji de waaye soo bëggoon wana bi ne wala jógal téere bi kon am saa al gi doo ko jaar nga daana xuusil kitaab wala aatinil kitaab loolu ma yu tawassalu des na jottale ko bi aajo beneen si jëm ci tudd hmm. bi saakini jaaji sukkoon hmm. wala daf lay dimbale boobu hmm. nga mën a tudd ku sukkoon gis nga ko baax a baax te alkitaabu laa ma xam ko bi sukkoon soo ko nga dalay jibaat sukkoon buñ ci dalee am sama nga lay dimbale ba nga mën a jàng baat bi kon wasani bi am sul wasni wali saa ngir ni sama da ko tuddee alxaliiru lil wasli ñaal na waslu hmm. hamsun hmm. hmm. hamsa saahidun kudaaji dolleku layes budu dumusa e layes astude andore bul tambale asasi jimu hamsa waslu buñ ko waxee mooy hamsa buñ dolli ci bopp baat te buñ dalee wut ca baat ba duñ ko jàng ah, dégg hamsa buñ dolli ci bopp baat buñ dalee wut jabaat ba duñ ko jàngaat sa góor lañ mu am sa awur awur turra wala loro lay jëm ci moom wala boog la way ara isnayni ahsana shii masala ala hada sabin dari min ni amin ala ma ne la ara den may gis isnayni ñaar ahsana ñoo gën a rafet shii masala ci alaa dafaani dari ja xew-xewi jamono yi min nii ci man wa jumlin ak ci jumlu xam laa ara isnayni waxuñ laa ara isnayni xam la bi ñu ne dëgaleewuñ xëy na sunu wéy wala yakunu fil mutaari mutlaqan Hamzul wasli doo ko fekk ci mudaare moom ak mudaare moom lu maalam maa xamoon na ko amu ko yëpp mudaare moom tam am solo wala duy nekk itam fii harfin ci haraf xëyri ar te baat bu ñuy tuddee haraf itam fudu arw dee Hamzul wasli wala fii maadin sulaasi doo ko fekk itam ci maalam sulaasi bi ñuy nekk akala maala sulaasila an fajir ba taamal hmm. du hamsul wasli hmm. axata maala sulaasila hmm. an fajir ba taamal du hamsul wasli wala rubaayi doami tam ci maalam rubaayi lu mel ni ansa ak rama ay feneen li rubaayi lañ waaye am fajir leen taamal du hamsul wasli min wasli ñaal na wasli am sun am soo saabidun gudaaji dolleeku hmm. laa yaqulu du mu sax hmm. ilaa ye sot tuddee a doy bu tàmbale na fii ci moom kani ki wax sa jëne ne istas biddoo saxlu lee hmm. baatal boobule yaa ngi defam sa ndollal ci bat wudu da ngay dalay ci bat am sa biddoo ko jàngaay man am sa am sa am sa tul wat wo mu am tul wat fi'lin ñaar na fi'l maadin jule maat itawaa joj laqana mu ala sara ci lu gën a bari min almaatu ñeenti arab fafi doon yi wala ci lu lam xam sa waslu nag yàlla koy fekk ci fi'l bu ëpp ñeenti arab mën naa am te am sa cee bopp loolu ëpp ñeenti arab ñu ne ko maat wala bu ñu am sa bopp doon it ëpp na ñeenti Hmm. la hmm. fi'lu la amma fii la fanihin hmm. teera xam nga ji bokk na mu doon ci yow mu doon ko yow am naan sul wax ak istaxraja fi'l la sudaasi la bu dul am sa yëpp fanihin teera di jur am sul wax daal waaw woo mu am sul wax li di fi'l ñaar na fi'l maadin jure maan bi tawaajul laqee na mu ala asara ci lu gën a bëri min asmaat ñeenti araf yi jàmbe xam nga ñu ma cee bokk loolu ëpp ñeenti araf xawi doon yi wala ñu nga xam wala bu ci bokk wal amri ak lamar wal masdari ak masdar min maa ci li min wu ci li ëpp ñeenti araf fin le commencé wala sudaasi fi hamzul wasli lamaram da koy am in jëli ngay wax wa kasaanaka noonu amru sulasi lamari sulasi dana am hamzul wasli moo xam dañoo fataxinul mudarin wala day su kasra wala day su yaxsa ragalal yaxsa mudaare ma la buñ fataa sin ci ay ni mudaare ma sin nga am sul am sul wasli léegi béy wéyal mata yamti ay mudaare ma dañ ko kafraay tan bi sula sila sin nga am sul wasli bi ci lamare um ko daan wéyal